tey liñ fi indi tey moy euh, ñuy waxtaan ak ño xam ño ngank programme doing business ak réforme Sénégal pour que a euh, ñaax ñaax ñoo xam ne ñoo yor seen i koppar war investir ci Sénégal nga doon nak wa Sénégal wala nga doon ku jógee bitim réew moy li ñuy naan investissement direct étranger wala investissement privé tout court Sénégal depuis 2012 bi président Macky Sall. Euh, ñëwee ci réew mi jiite réew mi dafa euh, programme bu ñu naan le PREAC programme boobu jumtuwaay la ci wàllu liggéey day indi ay coppite ci wàllu administration gëna yombalal ñu yor seeni copor yor seeni projet wara gëna créer seeni entreprise moy cycle bobu ma 2013 2015 ñu def ci ay jéego yu am solo Sénégal am ci ay ndam ci walu environnement des affaires ba tax sax euh, ñetti yoon ñu ñuy ñu ngi ci dix fukki réew yoo yo ñoo gëna am réforme ci euh, ci adina bi ñu dem entre 2016 mille seize ak deux mille dix huit ñu càmbaraat benen benen benen programme programme bobu japp ñu ñu ci pour jappalé ñoo xam ñoy créer entreprise naka lañuy togolé mbirum entreprise mu gën compétitif les coûts des facteurs de production Nous avons aussi ndam dame qui gis ngeen ko Sénégal gagné 18 places 18 points dans le classement Doing Business Nous avons ñu ngi jublu ci pàcc le xam 2020 21 mesure de réforme yooyu mooy coppite ñu waroon tok fi tay waxtaanee ko ak wa secteur privé waxtaanee ko wa administration waxtaanee ko aussi ñu xam ñom la wa banque mondiale dënk mbir mi ñokoy koy saytu ëllëg donc ñu tok fi diko ko lolu motax ñaari fan yi ñu xol li Sénégal def ba tay gëm nañ ni dinañ am 5 réformes yo xam dina baax té dinañ ko accepter mom moy porter Sénégal ñu ñu ñu ci top 100 mondial moy suñu ambition président Macky Sall moom le centre, gouvernement mom la administration ak du secteur privé bi accepté gis ngeen ko ci PSE phase patchu patchu PSE bu phase 2 du PSE gouvernement du Sénégal ak li ñu def ci Diego ci walu investissement gouvernement état bi mo def investissement yu gëna bëri ci phase yi passé légui dañu invité secteur privé ñeu bokk ci investissement yi gis ngeen waxna ko légui investissement privé mi ngi yokku at bu nek dina yokk de 10 à 12 lolu motax ñu amone réunion bi fi tey am aussi implication secteur privé implication administration et implication les acteurs de la banque mondiale. Wa néna néna légui dañu wara dañu wara euh, préparer suñu bop ci walu réforme yi gëna baax ci walu pétrole gaz ak énergie. lolu moy liñi def parce que y a le COS Pétrogaz.